jërë ngeen jëf bésu 23 juin xaaj na ñaar le quotidien moo ko bind ci xamal ñu ne bëccëgu tey gii ñaar fukki fan ak ñett atum 2021 tey lay am fukki at ci bi askan yu jógee fipp woon yëngal réew mi ngir bëggoon a gantal pexe mu Abdoulaye Wade doon nasa ci assemblée nationale bëggoon caa jaare ba am troisième mandat ak it mën a sàkkal boppam donoo ci bopp réew mi dëkk bi yëngu woon fitna ju bari amoon fi kuréel gu ñu naan M23 ci tey jii ñu war a fàttaliku bés ba waaye ci ak féewaloo lay amee ne waa woote nañu am ndaje ca place Obélisque muy place place de la nation waa MDD di waa mouvement défense démocratie ñoom it woote am ndaje ca terrain ba ca HLM Grand Yoff yëpp jëm ci màggal fukkeelu anniversaire bu événement yi fi woon 23 juin 2011 réew mi quotidien xëy di laaj lan moo desete ci M23 l'observateur ne ko ci xëta mu njëkk bareetul ne M23 dafa dellu gannaaw ci fànn yëpp bañ na ko boobu bis bi di waaj a ñëw préfet bu Ndakaaru ñeenti demande autorisation manifester la jot te ci ñeenti demande yi ñaar yee seeni borom dañu ko mujj fomm ñu fommul fas yéenee di waa tëddee àllarba ju nar xumb ak guerre de mobilisation la gis ci dëkk bi la na ko ak dëkkante la nar doon ci wàllu mobilisation waa mouvement défense démocratie nee nañu na askan yu fekkee ca terrain ba ci HLM Grand Yoff ñu xeex fa yi am ci réew mi te ñu jàpp ne jaaduwul ak it waxi troisième mandat gi ñuy ruumandaak ci réew mi ci jamono joojee journal L'As mi ngi ñuy xamal ne task force bu APR nee nañu ñetti nit a ngi ñoo xam ne le témoigné nañu tey la yëf yi nar a takkarnaase ba mel ni téeméer yemb ci benn biteel ni ñoo ngi màggal ak di fàttali ko tey événement yëf yi amoon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin 2011 waaye xeex baa ngi ne koro ci kan ci ñi ci pouvoir bi wala ci ñi ci opposition bi ñoo yeyoo màggal fukki ati 23 yi enquête dina kay nañu bataille moo ci am Doudou Sarr mi coordonnateur bu M23 di ñu wax xët mu njukk enquête dina ak xëccoo mën na cee ñàkk ndax M23 mënut a nekk bi te M23 du mujje ñi ko jël bëgg ko politique daanaka yàq moo leen tax a jóg journal Les Échos bind ne ak lu ci mën am daal pouvoir bi opposition bi ci nattanteeg nappante ca la nekk journal Le Fou moom ci li mu xëy nekk moo di duñu fàttali bésu li fi amoon na mu demee woon ak li ko waraloon lépp yéen kaay bi xëy na ci dellu siwaat ba dolli ñu ci ne ñi fare ci mois présidentiel gi ca place de la nation di place Obélisque la ñu woote tey ji ci ngoon boole ca terrain bu HLM Grand Yoff suur suwaa nee nañu njaw mi ngi ciy desandi waxam bi ndax am na ci askanoo fa dëkke ñu ne terrain boobee dañu fay jaamoo yàlla ajjuma ju nekk dañu fay daje di xadara duñu nangu ay nit yu ñu xamul fan la ñu jóge ak ay defkati ñaawteef di fa dajaloo ñu ne bu dee autorité yi dañoo waye di waye di gu toll ne nanguñ cee wax ñun askano HLM Grand Yoff yi ñoo koy régler suñu bopp ndax xam nañu ne ay malfaiteur la ñu ko séqal yoo xam ne xamuñu lu dul ab defante def nañu ca jëm ñaaju ab date centre national nañu ab de données la boo xam ne waa ADI ñoo gàddoon projet bi doon ko ànd ci ak ay partenaires yëf ya sotti na ba démb la ko président de la république Macky Sall inauguré ba sàkku ci bépp données boo xam ne Sénégal am na ko mu nekk ci bitim réew nañu ko jëli dem denc ko ci centre de données ba ndax kuy wàll yaa ni sëb dëkk grand place nañu président Macky Sall bëggatul données réew mi di taxawalu bitim réew nañu dem jëli données Sénégal yi nekk bitim réew yëpp denc ji ko ci centre de données ba ca jëm ñaajo grand place santé bu fajal ga ca Joal Vox Populi nee nañu tuuti ko noon musiba mbaabakumba am fa ne sage ba fa nekk moom la benn waay dem génneel ko paaka fitnaal ko ngir bëggoon ko tëddee ay 4 heures du matin ci la loolee xewee l'observateur nañu yi xaw ci réew mi ci ay ñaawte fu ni yamu rekk ci loolee ñu bëggoon a def sage-femme ba ca ngeeñeen ne ca diiwaanu kees it am na fa benn maçon bu am juróom fukket ak juróom maanaam 55 ans bu xale bu jigéen bu toll ci juróom benn yet 6 ans ba mu mujjee bu jigéen bi def na urgence semaine bu yàlla te ca Joal it am fa benn maanaam pêcheur boo xam ne doomam ju ci fukket ak ñett maanaam treize ans moom la jàppee woon foowukaay di ko jabaroo guddeeg bëccëg ainsi ah, sax booy xool 23 juin 2011 ak mars 2021 euh, lan ngay def ci méngale ci ñaari xew-xew yi xam nañ ni bu mars bi moom moo gën a tar ndax bakkan yi ci rot fukk ak ñett gën gaa yées waaw bale nag aussi am na bakkan yu rot doom Mamadou Diop siège M23 bokkul mais jour 23 juin bi amul kenn gaañu 23 juin 23 juin non waxuma journée 23 juin mais li waral xeex bi ba ci cappaandaw ja laa wax. parce que nit ñi dañuy mélanger mais waxuñu M23 ñu jógul rek ne Ablaye Wade warul nekk warul def troisième candidature ñu bëri commencé wuñu loolu lañ commencé mooy ticket kii bi. 25 euh, pour cent yi waaw. loolu après ñu dem ba ci biir ñu dajale ay experts euh, ñoo xam droit rek lañ jàng. ñu tegal ñu ne Wade warul nekk troisième euh, warul def troisième candidature mais aussi Wade dajale na ay experts yoo xam ne nii dañ dañ ko wax ne ko mën na présenté wu donc xeex la bu metti mais bu ñu demee ba conseil constitutionnel daganal ne dafa war a jàll la fa sës mooy ñu ne nañ wote contre moom moo tax quatorze candidats yi amoon treize yëpp dafa nekk benn bloc te li leen lié woon le lien c'est le M23 donc léegi léegi bu fekkente ni euh, xool nañ li xew 23 juin 2011 xool li xew weeru mars 2021 euh, ak bakkan yi rot Euh, woo askan wi ci génn ak euh, ñaxtu moom est-ce que waruñoo xoolaat woowin waak defin wi bu ñu génnee. Eh, maanaam la leen di génne ñu jëm ko moytu mooy priorité. lu leen di génne ñu jéem ko moytu mooy priorité génnaat gi aussi day day am d'une manière spontanée. bu ko jaree Max kat li taxoon nit ñi génn mooy ku ñu tuumaal ne da doon bës lu am lu ca rax ak ñoom seen est-ce que loolu itam ay bakkan war na caa euh, rote. ba bakkan moom la euh, la sëñ Mountakha waxoon bu yàggu lay delluwaat rek wut nguur wala bëgg faa yàgg wala bëgg ko bëgg cee jot jërul benn bakkan waxantuma la ak fukk ak ñaar kon loolu dama naan la ko waral nañ ko éviter. te nag da ngay xeeb euh, xal mu lakk sa dàgg li ñuy wax donc lépp lu xam ne ni mooy indi jàmm ci réew mi daal ñu ciy xëy di ci compte moo gën ñuy créer loo xam ne nii am na doute wala wóoru leen wala maîtriser wuñ ko parce que euh, maanaam dañ naan euh, aw xob bu naawee ngelaw lu ko dugal ci barab sàng mënu ko faa génne donc mbir lu tuuti dana jur loo xam ne nii da nga dem ba jeeg nga ne nga ne su ma yëgoon wala rëcc ko loolu nag Sénégal gépp nañu àndoo di ko moytu te kilifa diine am nañ ci baat mm-hmm. léegi tey jii M2D fii euh, M23 fii mm-hmm. euh, te ñoo bokk neen boo xoolee li ñuy xeex mm-hmm. est-ce que loolu xëy na am na leneen lu ci laxasu loo xam te ne du xëy na askan wi ak xeexal askan wi seen bu ñu bokkee li ñuy xeex aussi bokkuñu lu leen jur bu ñu bokkee li ñuy xeex bokkuñu la leen jur mais xeex gi nag dafa yaat parce que bu ñu naan renforcement démocratie liberté d'opinion affaire fonctionnement justice loolu yëpp cocktail la boo xam ne nii ah, lu ci nekk mën naa jur musiba. kon est-ce que réew mi am na woppi démocratie dëgg-dëgg. waaw boo ko comparé ak réew yu bëri da nga naan Sénégal sori na waaye bari na lu régressé par rapport ak deux mille par rapport l'an deux mille ak am na ay acquis yoo xam ne am nañu deltu gannaaw. waaye am na yu fi renforcé wu pour dire la vérité am na yu fi renforcé wu mais am na yu deltu gannaaw am na yoo xam ne aussi dañu a pas de ba nga xam ne mm, exemple ci démocratie ak France gis nga fa li fa xew bërki dem ci élection euh, Joe Biden France aussi gis nga fa xew bërki dem ak euh, Emmanuel Macron Sénégal aussi dafay tout ça c'est l'histoire parce que nañ xool cinquante ans ci ginnaaw jamonoy du Dia ak euh, Senghor c'était pas les mêmes problème tey jii yeneen problème moo am ëllëg yeneen moo fi am malheureusement gestion bi ak euh, approche bi ak format bi ñu koy gérer moo jar di seet te loolu euh, engagement premier responsabilité première c'est celle de Macky Sall en tant que président de la République moom est-ce que amoon na mbetteel ci moom déjà moo doon xeex tey am 23 àndoon ak yéen xeex. Mm-hmm. ngir démocratie justice ak yooyu tey mbir yi dellu gannaaw dafa mel ni la mu taxawee woon ak ni mu taxee wuute na euh, daanaka. Euh, mbir yi soppeeku na ci taxawaayam. Ah, am na ci lu soppeeku. c'est que aussi xam nga euh, àdduna dafa doy waar parce que nit bu dee toog nii dañ koy dañ koy natt ci waxam wala ci jëfam waaye doo ko natt ci xalaatam parce que xalaatam doo fa àgg ba xam lu mu xalaat donc moom li mu xalaat ci avenue Sénégal moom moo ko xam. waaye nag ñun li ñu koy digal en tant que allié mooy mu posé jalon yoo xam ne jalon yoo xam ne su ci jógee sénégalais boo xoolee na siggi na siggi xool nit ñi maanaam ci fukki seconde sénégalais xam naa laaj njóg bi loolu la <laughs> ci fukki seconde boo xoolee sénégalais ci ci ci Laay Wàdd hmm. ak sénégalais ci Macky Sall hmm. est que yokkute am na ci ci wàllu dundin ci dundin ah ci ay euh, am na lu yokk am na lu manqué am na lu yokk am na lu manqué liberté yi aussi am na yu yokk aussi gënut a bënn <laughs> waaw pouvoir d'achat kooku kooku moom soo soo ci duggee maa yaa ngi dugg ci sama sama domaine parce que économie la poche yi moom wax dëgg yàlla euh, gën sonn na sonn na surtout jamono ji nga xam ne génn nañ ci pandémie ni ñu sonn nañ moom pour dire la vérité ni ñu sonn nañ jërëjëf Alla Dieng njiital UFC union des forces euh, citoyennes jërëjëf Alaaji Njoogu jëf euh, Cheikh ak ñi mu toogal ñu ndoog jàmm waaw waaw venez profiter de la promotion two weeks ak soumari.com ci ay prix yu amul fenn frigo bar LG 2 porte à 89 000 francs garantie 12 mois climatiseur BTU un cheval à 129 800 francs garantie 12 mois climatiseur 12 000 BTU 1.5 à seulement 149 900 francs garantie 12 mois pack 2 ventilateurs Yahanal à 15 000 francs téléviseur 32 pouces original garantie 24 mois à 86 000 francs Camon p 28 Go, RAM 6 à 108 900 francs. Oppo A12 32 Go, RAM 3 Go à 74 600 francs. Samsung Galaxy A11 à 63 600 francs. te jeexagul de yow mi di jënd ak jaayaat indi na leen ay prix en gros yu xéewale ci lépp luy électroménager ak téléphone portable. Alors n'attendez plus, visitez nos showrooms sur l'avenue Bourguiba en face la Banque ACEP et au Parcelles Assainies près du rond-point sur les deux voies Cambérène vers la gauche ou achetez en toute sécurité au w www.soumari.com. Appelez-nous au 33 842 25 05 70 848 99 65 ou le 78 636 56 20. Nous vous livrons en moins de 4 heures partout à Dakar et 48 heures partout au Sénégal. Avec soumari.com, Jai Luyomb, Sassoune, Théo. Vous Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution définitive, assurance décennale, tout risque chantier et responsabilité civile. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 82 Assurance, votre partenaire pour toute forme de garantie. Entreprise régie Émission billée au Sénégal. RFM Matin euh, mbokk yi ci ànd beeg euh, huit heures jot na El Hadj Assane Gueye yegsi na ci xabaar yi ci wolof ci gàttal tey le 23 juin ba soo El Hadj Assane la nag ndax fukki at ci ginnaaw. bu muy jéem a yolleeku ci escalier yi bu ma lonk. <laughs> salaamaaleykum El Hadj. boobu ci tout tànk yi doon xala bi xeer ca Colobane nga bokkoon Babacar <laughs> maa ngi lay ziar bu baax ziar ñëpp ñaan ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm saa su di ko sàkku ci yéen mbokk yi ni ko sëñ Fall waxee fàttaliku euh, ci Sénégal euh, fukki at ci ginnaaw gaal gi yëngu woon lool ndax li nga xamante ni mooy ak pipp tukkee ci askan wi ñu ëpp ci ñoom ci dogal yu président Abdoulaye Wade euh, namoon bokk na ca car bloquant ticket président woowu nag ci la mujj dellu ginnaaw moom jiitu réew mi jamono yi ñu ko doon waajal wat gi ci assemblée nationale coow li bari woon lool fipp gi naka noonu mu tegaat lépp ci suuf ñu ngi tey jii ci fàttaliku gi euh, mouvement euh, bu ca ne ak na nga koy fàttalikoo tey jile leneen ci xibaar ñeel Matam yëngu société phosphate bi di Somiva kilifa yi ministre bi ñu dénk wàllu mine jël na dogalab tëj ka ay fan ginnaaw ngan gu fa njiitu réew mi président Sall doon amal ci bët gànnaar bu Sénégal ñu fàttali ni foofe ay waral euh, kilifa yi doxalee ni euh, ay leeral euh, tukkee ci kilifteeful hôpital dalal jàmm ca Géejewaay fii ci Ndakaaru ñoom lu jëm ci wàllu xibaar ñeel radiothérapie bu fa pan demee ni ab scanner de simulation ñu ne leeral yi kilifa gi ko dénk ci biir xibaar yi lay doon ci technique bi Abdoulaye Diop. jëre ngeen jëf ci ànd beeg ñun rajo Futur Média ñu ngi ndakaaru rue 15 angle corniche immeuble El Hadj Mandour xibaar yi dañu koy tàmbali ak pàttaliku ca Colobane bis ne tey fukki ci ginnaaw xam ngeen ni réew mi yëngu woon na lool ci wàllu kon événement yi 23 juin 2011 euh, pàttaliku gi ak sabar baax buntu assemblée nationale ñu gën koo xam ci place Soweto nuroo woo nag fu ñuy tourner film fii ci Sénégal politiciens yi citoyens yi ak ñi bokk société civile ñoom ñëpp bokkoon ci bile mbir ngir ñu bañ a projet de loi bi six ca fajar Dakar soppi xarkanam takk dari bari woon fa waa GMI police gendarmerie BIP ñoom ñëpp wër Ndakaaru assemblée nationale palais jaar marché Sandaga ak ca Médina waaye gëm-gëm ak pas-pasu askan wi ëppoon doole takk der yi nga xam ne ne ministre bi ñu dénkoon wàllu intérieur ca jamono jooju Ousmane Ngom génne woon na ko rappeurs yi bokk ci mouvement Y'en a marre jiitu woon ci bile xeex naam sax am na ñoo xam ne jàppoon nañ leen ci taxul ñu dellu gannaaw benn yoon Barthélémy Diaz mer ci ca jamono jooju ci biir hémicycle bi ma nga doon yëngu maître El Hadj nekkoon kenn ci député yi nga xam ne ne àndul woon ci boobu projet de loi merci merci merci. grenade yi ak ndox mu tàng mi ñu koy xëpp ñi nga xam ne ñooy way manifester yi. bàyyiwuñu kii du njiitu mouvement fekkee ma ci boole jamono joo xam ne sax ma nga doon amalaw interview. mu àndoon ak ay nervi yu bëri ca jamono jooju lii la Macky la doon wax. gis nañu volonté manifeste bu nguur gi pour jéem a manipuler ak gaañ euh, population yi. ñoom ñoo wax démb ne nit ñi mën nañ manifester leader yëpp a ngi taxaw ñu attaqué leen dal seen kaw loolu jaay doole la waaye du tax ñu ngi nii encore taxaw te dinañ taxaw bu loi bi jàllee danañ continuer chaque jour xeex ko woo population yëpp ku ne fa nga nekk nga combattre ko jusqu'au bout Aïssata Tall Sall mer ba futt gannaaw ba ka takk dere tere ngir mu yegg fi nga xam ne ne mooy ci biir assemblée nationale bi. monsieur Farba Senghor est ba futt njiitu réew ma woon Abdoulaye Wade mujjee dellu gannaaw ci li nga xam ne ne moom la bëggoon maanaam projet de loi bi mu yebaloon jëwrin bi ñu dénkoon wàllum yoon ca jamono jooju Cheikh Tidiane Sy mu àggee boobi xibaar député yi bànneex façon loolu ca place Soweto boobu la coppite ñu doon amal ci constitution bi ñu koy wax ki présidentiel doon na yombal li nga xam ne mooy pal président ak vice président ñu njortoon na ne ab Ablaye Wade dafa bëggoon kii di doomam wuutu ko su fi jógee. mu nekkoon euh, fàttaliku Amadou Sabax Ba ñeel 23 juin gi nuy fàttaliku tey jëlee euh, fukki at ci ginnaaw bi askanu Sénégal euh, taxawee waneeg pipu ci kanamu njiitu réew ma fi woon Abdoulaye Wade ngir dogal mu namoon ñëpp baab wutali assemblée nationale gañu ko namoon wote ba ni mu ko tegee ci suuf di li sowe Sénégal ci lu nu njortoon ci gaal gu. Euh, këppu mardi imsu lu ni mel ndax mën na fi amati am déet loole laaj bu nu jibal ci gëstu bu Makumba Bey mu seq kook ñaar ci kilifa Abdou Aziz Diop nga ca conseil spécial bu président de la République ak Bassirou Sarr fukki ati M23 yi dafa dajeeg Sénégal xiin xiin wu lëndëm woo xamante ne nii xamuñu lu muy taw ci wàllu politique ndax Macky Sall mën naa am lool mu yëkkatiwaat loxoom ngir ñetteelu mandat Abdou Aziz Diop moom yoroon na kàddu M23 léegi conseil spécial u Macky Sall moom la président de la république nee na nag la xewoon ba nit ñi jog bu xewaatee nit ñi mën nañoo jogaat su fekkee ni lu mel noonu dafa jibaat te ña jàmmarloo woon ak président lay Wade jàmmarloo picc ndawu réew ma ba loolu sottiwul su leen fi yàlla bàyyee may leen wër ak carte man ci sama gis-gis bu gàtt seen taxawaay mënul waroo seen taxawaayu 23 juin 2011 lu tax mooy nit nit rek la. te itam képp ku yeewoo ci réew mi na nga bàyyi xel lëf mooy mbokk ñëpp nga mbokk ñëpp nag war na daw tuuma bu mënul dëkki basiru Sarr bokkut ak moom gis-gis moom ci ñi sos m la bokk nee na la taxoon a jëkk m nit ñi mën nañoo wéy ba léegi di xeex loola waaye fi mu ne nii tollantiwaat ko du mën a nekk ndax daqaar du saf ñaari yoon mouvement bu mel ni M23 mënul amaat xam nga dafa am benn euh, xalaatkat bu mag bu yox naan ah, maanaam histoire ni muy doxee maanaam xilaas ni muy doxee eh, dafay dox ci noo xam ne bu njëkkee feeñ day doon lu yéeme lu jaaxal ñëpp waaye nag bu ñu ko buggee dolliwaat ne nam amoon nañ ko defaraat nañ ko delluwaat buñ ca boy boy ba loolee day doon presque farce maanaam comme ku ku jóg di taaxuraat. jamono yi nag mën naa wuute ndax car bloquant mën naa am kenn doodu ko fi indiwaat. te bu boobaa itam bàkk wa day soppeeku maanaam bul laal sama constitution waaye lu mënti am yëkkati sa loxo laal ñetteelu mandat mën naa doon laal laalaake mën a tax itam ñu bëri jóg te waajuñ ko woon. jërëjëf Makumba euh, lu jëm ci pàttaliku gi ak euh, li nga xamante ni mooy ndaje yu nu jox askan wi bokk na ca waa M2D euh, tey jii ci 23 juin 2021 mouvement pour la défense de la démocratie bu ngoonee dinañ amal ak ndaje mu yaa ca terrain HLM Grand Yoff fii ci Ndakaaru ñoom membre yu m ñoom ci seen wàll ñoomit joxante ndaje ak seen i ñooñ ca place de la nation ñaari mbootaay yëpp démb sax woon nañu taskatu xibaar yi ci ndaje ngir def li nga xamante ni moom la ñu duppee battre le rappel des troupes maanaam woo seeni ñooñ ci loole ñu namm tey nekk pàttaliku ñeel 23 juin 2011 euh, RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te ay fan ginnaaw ngan gu président Macky Sall doon amal ci bët gànnaar bu Sénégal euh, saafara juddu na wala mel na ni lu ko euh, ne ci ñi doon euh, sàkku ndàmpaay ci kër gii di yëngu ci wàllum phosphate muy SOMIVA ginnaaw bi nga xamante ni seeni suuf wala terrain jël nañ ko ci ñoom gannaaw it ñaxtu gi ministre des mines daal dina jëlab dogal bu fës moom Oumar Sarr tëj lii di entreprise bi leerali li Ali Bandel ñoom ci ab mbetteel dëgg la askan wi yëgee tëjum mine bi nga xam ni moom la ñuy exploité phosphate yi nekk ci ndëndoor yi boobu ba léegi nag askan wi ñu ngi doon amal ay doxub ñaxtu yu métti métti ba sax yenn saa yi mu violent lool doon sàqu ci société bi ñu dippee SOMIVA mu daal di leen fay seen ay ndàmpaay société bi kon mujjee enclenché ab procédure ngir ñu recensé ñi nga xamante ni ñoo loru ci mbir milee ñu ci yeggee ñeenti téeméer ak benn nit bokk nañu ci ñi nga xamante ni loru nañu bu baax ci exploitation minière pépinière bi ci phosphate bu Ndendour yi waaye procédure bi ak rigueur bi ci kilifa yi demee mbir yi dafa xawoon yéex ba tax bi njiitu mi di waajal tukkeem fii ci diwaanu Matam askan wi génnoon doon sax kon tëkku ni dañu génne ay brassard rouge ngir que président mën leen dégg bu baax a baax naka noonee la société bi ci ñeenti téeméeri million jot a génnee téeméer ak juróom fukki million waaye askan wi ne déet ndax loolu du leen doy dara tey jii ministre mi na la ci jël daal di ordonné ñu tëj maanaam ñu dakkandal bépp activité ci mine bi décision bi mel ni ab pression bi nga xam ni nguur gi ñu ngi koy teg ci ndoddalu SOMIVA mi nga xamante ni ñu ngi sàqu ci moom mu génne koppar yi mot ngir mu fay baykat yi nga xamante ni lu jege fukki a ngi nii dañoo nangu seen ay ci biir gox bi le nag gannaaw bi ñu fa wëree activistes yi ak ñi jiite kuréelu ndaw ñi góor ñeeg jigéen ñi rafetlu nañu lool décision bi ndaxte itam jàpp nañ ñi beneen firnde la rek buy wone ni Macky Sall mu ngi bàyyi xel bu baax a baax jafe-jafe askanu diwaanu Matam mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaa fii ci doonu Matam pour RFM. jërëjëf Ali Bandel wàllu wér yaram fii ci Ndakaaru la ñuy ñëwaat euh, dem ba Géejawaay ci hôpital Dalal Jàmm ay xibaar wax wàllu ko panne ñeel radiothérapie ba fa demeewu ni loolu la professeur Macoumba gay leeral mu ne euh, fa amee panne ci wàllu li nga xamante ni mooy machine simulation rek la euh, di scanner boo xamante ni jafe-jafe courant moo ko jural lu ni mel ca panne boobee yàqul lenn ci la ñuy liggéeyee ka taxawu malade yi ci dalal jàmm Oumar Mbow. am na naam ab machine bu panne ca hôpital bu dalal jàmm waaye du radiothérapie bi di xamle professeur Macoumba Gaye moomee mooy chef service radiothérapie bu hôpital dalal jàmm. demeewut boo bëggee def radiothérapie la ngay faj ngay njëkk ko xool ba xam fu mu ne appareil yi ñuy xoole li ñuy faj muy simulateur bi moo paan te paan bi nag am na ay lu yëwen weer mu mel ni problème mu électricité am na fii duma ne ci dalal jàmm rek waaye war nañu seet saytu électricité bi ñuy jox hôpital bi ndax jaar na yoon ndax bu duggee ci hôpital bi ni ñu koy jëfandikoo yi ndax jaar na yoon loolu taxit woo nañu entreprise boo xam ne mi ngi ciy liggéey pour seet problème électrique yi lu tax mu am problème électricité ñaari yoon ba ñett ci at ba appareil di ci yàqu. bile pa nag daanaka lu muy indi si ñol-ñol bariwul ndaxte moomee di xamle ne ku amul yaay namp maam. seet nañu ñi nga xam ne am nañu appareil bu nuroog moom ci dëkk bi te ñu mën fa yóbbu maladie yi ñu préparer liñ leen di faje seet nañ ko sax fii ci suñu service radiologie bi nga xam ne am na scanner donte xaw na wuteeg ba ñu yor ba ci radiothérapie. ba mën jot niñ ci jël ay malade ngir faj leen amut malade bu fi ñëw ñu ne la kenn du la consulter amut malade bu ñëw ñu ne la ko kenn du ko faj li am kañ mooy am na mu amaana ñu waroon a dugg ci weer wi seen dugg xaw a tardé fi mu ne nii nag benn urgence rek moo am mooy lii ñu ngi ciy dox ngir ñu defar ko defar bu gaaw tooguñu it di bàcc loxo di xaar ñu defar ko professeur Macoumba Gaye di fàttali ne gouvernement bi daal dina yóbbu ca hôpital dalal jàmm ay jumtukaay yu xarañ lool te ànd ak jamono loole nag tax ñoom amuñu benn réew ci àdduna bi bu ñuy ñee RFM Géejawaay Omar Mbow. Omar jërëjëf Fatick la ñuy wutali bi yoon lu ñeel étudiants yi nga xamante ni ñoo dëkk ca campus yi euh, di université Sine Saloum dañoo namoon ab dox euh, tukkee foofee wutal si Ndakaaru waaye police dafa mujj gàntal lu ni mel Aminata Goudiaby des itinéraire bi moo nekkoon dañuy jël départ Fatick. étudiants yi nekkee ci université Sine Saloum te faree ci Kaolack Fatick ak itam Kaffrine ci Fatick la ñu joxante woon rendez-vous tey jii fas yéene woon dox doxu ñaxtu ba egg Ndakaaru ngir rek président de la République mën leen recevoir ñu wax ko seen jafe-jafe waaye nag loolu ñu namoon mujjul antu ndaxte takk der yi ñoom ñoo leen ko aayee Mohamed Lo étudiant la ci campus bu Kaffrine. marche bi ñu ngi ko waroon tàmbali de Fatick à Dakar wane suñu naqar mais à notre grande surprise retenir ñun ay étudiants lañu dañuy xeex suñu ak ak suñu yelleef. Abdoul Ba moom ci campus bu Kaolack la jógee tey itam bokk na ci amical bi. dans un premier temps dañuy def grève 48 heures autorités faalewuñu ñu def faalewuñu def nañu une semaine faalewuñu mu ñu def illimité def nañu ay front Kaolack Fatick ak Kaffrine yëpp. ñoom nag ba léegi li ñuy ñaxtu moom moo di seen ay conditions yu métti yi nga xam ni ci la nekk. beneen point revendicatif la programmation des masters parce que dañoo nekk ci benn système muy système LMD ñu ñëw ba suñu troisième ñu ni master mënul am beneen bi mooy li nga xam ni moom mooy la construction de nos campus parce que université Sine Saloum depuis 2015 la ñu teg première pierre mais ba tey amul benn état d'avancement. bokk na ci li leen gën a métti moo di jafe-jafe yi ñuy dund dafa mel ni ministre bi yor wàllu njàngale mu kayo mi yëgu ko ndaxte ba léegi ñoom ñi ngi sàkku ngir dajeeg moom waaye ba léegi mënut a antu. woo nañu ministère ba jam ñaajo ñu ñëw toog ko dix heures ba quinze heures toog nañ fa ba quinze heures trente ñu woo ko mu ni mi ngi réunion. démb nag ci altine ji ñu ne Cheikh Kanté dalaloon na leen waaye lañ fa jëlee nee ñu dalul seen xel moo tax seen xeex bi bëgg guñ koo teg ci suuf Aminata Goudia bi Fatick RFM. RFM Sport. tàggat yaram ñu ànd ak Abdou Diouf Junior dal leen jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi dañu koy door rek wàllu football ak AS Pikine mi nga xam ne démb ay euh, footballeur yu fa nekkoon jamono ji ñu nekk ci bitim réew ku ci mel ni Pape Abdou Cissé ñoom ñoo amaloon benn jongante boo xam ni liñ ci namoon mooy fexe ba béggal askan wa ak rawatina seeni supporters ñoom nag euh, AS Pikine lañ doon dajeel AS Pikine euh, duma leen ñeenti bal ci benn mu nekkoon kon occasion ñuy xool bu baax club beeg taxawaay bi waaye itam amul woon objectif bu particulier dañ ko defoon rek. ngir euh, bànneexu suñu sukkandikoo ci Matar Gaye mooy manager général bu AS Pikine ñu déglu ko ak Ndeye Mour Sembène esprit de fair play mm. esprit de fair play dañ doon def parce que c'était des joueurs euh, de l'équipe nationale yu doon ñëw rencontrer joueurs AS Pikine dans l'esprit de fair play mais aussi par le biais de Pape Abdou Cissé qui est euh, de l'équipe nationale et qui fut joueur aussi de l'AS Pikine donc loolu encore benn euh, match de gala la woon rek. la moo nekkoon objectif nag. bon y avait pas d'objectif majeur ah objectif bi c'était quoi c'était de jouer avec eux donc euh, pour faire un match amical tout juste mais amuloon benn benn objectif boo xam dana visé woon na ko ñaari équipe peut-être que pour l'équipe nationale peut-être que joueurs yi nga xam ne ñëw en vacances ñun euh, ñu gën a gën a am tànk. bon jour AS Pikine yi aussi bon ñu mën a découvrir ni ñu ngi joué ak ñoo xamante ni euh, peut-être c'est des internationaux loolu la woon mais y pas d'objectif majeur jongante boobee kon Pape Abdou Cissé moom moo ko amaloon àndoon ci nag ak ay euh, joueurs yu équipe nationale bu Sénégal yu ci mel ni Moussa Konaté di Sarr wala bokk mbay Diagne ak euh, ñeneen ñu doon football kon foofe ci kanamu supporter yu AS na ca biti réew lañ jëm waxtaanee wàllu football ak euro bi nga xam ne dafay wéy tey jii France Portugal jongante la bu am solo ci groupe F bi ñoom nag ñu mel ni ñuy fàttaliku nag final bi amoon ci euh, euro bi ñu weesu première place bi nag la ñuy yóotu ñoom ñaar ñëpp France am na ñeenti poñ. Euh, ñii di waa Allemagne ñoo topp seen ginnaaw tolloog ñoom ay poñ waaye itam Portugal mooy ñetteel bi ñoom nag euh, li ñu bëgg mooy fexe rek ba daal di euh, qualifier directement ñoom waa Portugal ñi nga xam ne ñoo yor raay bi waaye nag mbiri revanche moom dina ci xeeñ rawatina ci côté France ñaari attaque la yu am solo yoo xam ne dina tax kon jongante bu neex lay doon suñu sukkandikoo ci suñu consultant Tassirou Diallo. soo xoolee que France Portugal dina nekk match boo xam ne bu décisif la dañu daje woon final euro bi passé euh, que euh, Portugal gagné ko léegi nag bon day nekk match revanche match revanche nag chaque fois suy am day euh, day bari beaucoup de comment dire ay pexe yoo xamee ne ñoom ñëpp dañ koy indi ñële dañu am attaque bu mën a dugal France aussi dafa am attaque bu mën a dugal donc koo xam ne am na erreur bu muy def au niveau de sa défense rek soo motul mooy ñàkk match bi mais euh, li ñu wone ñoom ñaar ñëpp ah mooy que ne euh, match bi dafay nekk résultat indi si am nag kenn ku gagné parce que soo xoolee match bi man jëlewuma ko que ne dañuy jouer nul parce que match bu ubbeeku la te attaques yi dañ nekk attaques yoo mën a dugal bii la muy comme France comme aussi euh, bon comme. Portugal avec euh, leur buteur maison fële aussi dañu am beneen buteur maison mooy wone que ne boo ñaari équipe ku nekk am nañu kenn koo xam ne mën nay taal fii kenn kii aussi di taal fële match bi daal dina nekk match bu neex a neex a neex parce que match à résultat la. jërëjëf Tassirou Diallo ci euh, groupe boobule kon Allemagne ak Hongrie ñoom 19h lay doon naka noonu Portugal France nag di ko mën a déglu ko ci rajo Futur Média seetaan ko ci télévision équipe euh, commentateur ci wàllu euro bi ba léegi démb nag Angleterre moom defa daal di gagné ba noppi jël bopp groupe D bi ñoom waa Angleterre ñoom ñoo daan waa République tchèque benn bal ci dara Raheem Sterling moo dugal but bi bi ñu dawalee lu toll ci fukki simili ak ñaar loolu tax kon ñoom ñii di waa Angleterre daal di euh, jeexal li nga xam ne moom moo di euh, groupe boobu ci première place bi topp ci ñoom waa Croatie ñi nga xam ne ñoom dañoo daan waa Écosse ñetti bal ci benn ñeent poñ la ñu am ñoom waa Croatie ci ñi nga xam ne ñoo football mondial bi weesu final ba ci li nga xam ne moom moo di coupe du monde bi seen digganteeg France la woon na ñoom kon ànd nañu qualifié ak ñi di waa Angleterre ñu xaar ba xam ndax ñi di waa République tchèque daañu mën a qualifié ak seen ñeenti poñ yooyu le bokk ci meilleur troisième yi loolu mooy liñ fi indi woon ci wàllu xibaaru tàggat yaram di leen sant di leen gërëm yendoog jàmm. jërëjëf Abdou Diouf euh, junior ñu dalal léegi ci chronique culture bi wàllu cosaan Anna maa ngi leen di nuyu mbokk yi Thione Seck ba tey mu ngi ci euh, xolu acteur culturel yi ñetti weer gannaaw gi mu génn àdduna ñu bëri daal di ko euh, delloo njukkal ci jamono yi ñu doon màggal fête de la musique bokk na ci APCS di association de la presse culturale du Sénégal mu amal ci ab ndaje ci maison de la culture Douta Seck teewee na njabootu Thione Seck waaye itam ay kàngam ci euh, musique sénégalaise bi yu ci mel ni Ismaïla Diallo wala Père Ousa Ndeye Mati Dieng moo ñu fa teewaloon. Euh, kuréel gi nga xam ni moo ëmb journaliste yiy yëngu ci wàllum caada fii ci Sénégal euh, delloo nañu njukkal kii di Thione Ballago Seck conférence bi ñu amal ngir sargaal baayam bi dëddu àdduna Seydina Aliou Seck ne rafetlu na ko lool. di leen ci remercier di leen jaajëfal di defal yàlla def leen jàmm gën a jëm kanam ci wàllu Seydina nañ ko bu mu ne ko jar woon sa nga ñëw waxtaan ak ñun mënoo nga jël décision bi sa bopp. seede euh, yi benn la ñamu bokkaloon di way Abi Ndour ak Ismaïla loo ñoo wax ci seen i kàddu sama xarit sama lépp la waxtaanam damay dër di ko tooñ muy retaan di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom yóbbu ci firdaws te teg njabootam bi parole de Thione Ballago Seck un poète inspiré et prolifique ab téere la boo xam ne journaliste bi di Fadel loo ma ngi ko teg ca booy dugg ci salle bi ñuy defee conférence ki xaatim livre bi ne li mu ci namm mooy wan ñëpp ne Thione Seck bindkat bu mag la woon bind ci ñaar fukki woyam ak juróom pour wane ni wax dëgg yàlla non seulement taalifkat bu mag la waaye bind na ci yëpp bind na ci àdduna bind na ci xarit bind na ci dee bind na ci rapport nit ak yàlla euh, waykat bi le kon dëddu àdduna waaye bàyyi ci ginnaawam ay mbébét yu dul jeex association bu presque culturel bu Sénégal bi euh, di ñaan nguur gi mu daal di koy yeggali El Hadji Ndate Diop mu tuppee ko CEDEAO en cœur loolu nag nekk loo xam ne nii àggul moo tax ñuy ñaax bëgg njiitu réew mi ministre de la culture jàpp ci ak naata ngoom musiciens yi ngir projet boobu ñu mën ko àggale àggale ko ci organisation sous régionale yi nga xam ne moom moo fi nekk mais ci biir salle de conférence bu Douta Seck bi émotion bi daal di fi bari loolu naka noonu sax kuréel gi nga xam ni moo ëmb taskatu xibaar yuy yëngu ci wàllub caada daal di ñuy jébbal njabootam benn tableau boo xamante nataalu coon Seck la loolee nag ci kanamu directrice des arts bi nga xam ni moom moo fi teewaloon ministre de la culture. alarba ji daañu présenté woote ñaareeli édition grand carnaval de Dakar ndaje bi ca maison de la culture Douta Seck lay amee grand carnaval euh, boobule nag jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett